الحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله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 mooy bësam bii di waaj ñëw mu di le 9 décembre ca Thiès ah galaa may sori ci wax ji dama am ñoo xam ne dama toogoon ak ñoom muy sama ndeyjoor di Cheikh Sidi lamin juuf ki ci topp di Alaaji Baara Senghor ki ci topp di Xadijatu Senghor ki ci topp di Yaay Nafi Senghor lépp nag ñu ngi koy jël di ko teg suñu loxo sëriñ di Cheikh Sidi Mokhtar xalif général xaadiriya te Njaasaan di ci teg Cheikh Sidi Mokhtar bu Kiné Senghor te Thiès ak ki nga xamante ne mooy Khady Fall di leen yëgal nag lii nga xamante ne bii mooy waaj a ñëw te agsi na ba pare waaye comme dafa am ñu ma àndal waxtaan ak yéen ci mbirum yi nga xamante ne mooy ñaanu suñu maam Malamine Senghor ca Thiès dama leen di bàyyee kàddu gi ñu am seeni kàddu yuñ ciy dugal bu ñu paree nag ñu door a tëj waxtaan bi incha allah rabbul alamina kon maa ngi leen di bàyyeek Cheikh siidi Lamine Diouf kooku moom turandoo la ci Cheikh Sidi Lamine ca Njaasaan ma mag ma kon nag Cheikh Sidi lamin Diouf kàddu gaangoog bisimilah. asalaamaaleykum mbooloo mi. ñu ngi leen di nuyu di leen ziar comme ni ko sunu président waxee rek maam Alioune Senghor groupe bu waa Malamine Senghor ñoo leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di leen fàttali sunu bisu ñaan gi ñu waajal jëme ko ci sunu sëriñ sunu maam Malamine sengoor le 9 décembre ca Thiès. ah waxta wax eh, bis boobu nag yàgg nañ kaa waxtaan def nañ ci ay réunion yurul yu bëree bëri donc léegi li ñu ci def rek fàttali la loolu bis boobu ni nga ko ni nga ko def sous la présidence du xalif général de Ndiassane Cheikh Sidi Mokhtar Kounta ak ci présidence su sous parrainage yu sëtam Sidi Serigne Sidi Mokhtar Kounta bu Cheikh Sidi Lamine Kounta gis ne Senghor léegi daal liñ ciy wax daal du bari nu waajal bis bu bu baax a baax def ko sunu sunu bés jàpp ci lu baax a baax daf ba liñ ci defoon daaw ah liñ ciy def ren gën kaa gën a bari ñu ngi ñaan ñëpp daal def ci seen loxo seeni doole seeni xam-xam ak seen seen seen seen seen seen bu baax léegi nag tey jii danoo woote woon rek pour def avant première bi pour dugalaat nit ñi seen xel bis bi ne bis baa ngi jege si kon boog ñu jéem kaa ñu ñaan ñëpp daal ñu fasal ko yéene ñu préparé ko bu baax ah, waa waa Axlel Kunti waa Njaasaan waa Ndànk waa Misira fépp daal foo xam ne taalibee nga fa daal ah di wóoye Kunta Axlel Kunti te tamit ah, amoon yëg-yëg ak cofeel ci Sëriñ Malamine Senghor ñu ngi la ci invité ñu ngi invité mbooloo mi jullit yëpp bàyyi kenn kent ngi leen di sant di leen gërëm maa ngi leen jox maa maa ngi jox léegi kàddu gi xaddi ah, Khady Senghor mu eggale leen waxtaan wi ci mbirum jigéen ñi auusu billaahi na seytaane rajiim ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci yonent bi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di jox kenn ku nekk wàccuwaayam Ah, di wax ne ñu ngi wax ci ñu bésu maam bii ñu dégmal di la 9 décembre incha allahu taala ah, ñuy ñaan yàlla nañ ko fekkee jàmm te tal ko ñuy wax ne nag man sama kàddu mooy ñu ngi woo ñëpp bàyyiwuñu kenn muy Thiès muy Missira muy Tëngéej muy Ndànk muy Njaasaan bàyyiwuñu kenn di woo jigéen ñëpp bàyyiwuma kenn la ñëw a ah, takku nekk ci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 cheikh bu ibnu cheikh sidil maxtaar ibnu cheikh bu muhammad ci kilifteefu papa sidi maxtaar kunta ibnu cheikh sidi bu ibnu cheikh bu muhammad ndax bis bii kiñ ko jagleel euh, mbërum lislaam la bis bi kuñ ko jagleel jàmbaaru lislaam la bis bi kuñ ko jagleel jàmbaaru cheikh bu muhammad kunta la kon képp rek ku naan ashhadu an laa ñu ngi lay woo ci suñu xëyee la neuf dañuy wàccee kaamil suñu wàccee kaamil dinañ waxtaan tuuti ci moom waxtaan ci yàlla sunu borom waxtaan ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu paree ñu jël petit déjeuner muy ndékki ñu ndékki jokk suñu mbokk tukulóor yeeg suñu mbokk joolaa yi ñu ndékki bu ñu paree ci ndékki bi nag waxtaan ci moom ci lu bari ndax sët yi xam ko sëtaat yi xam kan mooy seen maam suñu paree ci loolu ñëw ci añ bi bu ñu añee ñu julli suñu jullee tisbaar ñëwaat ci bâche bi waxtaan ak nit ci jamono ji ni mu tëddee delloo siwaat nit ñi ci yàlla lu ñu jullee tàkkusaan ba pare nag la cheikh bu jóg mooy jàng-jàng ak képp kuy tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñuy woon ñëpp surtout nag waa Thiès ndax fa tëdd yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana bépp mboolem jullit waa Thiès yëpp ñu ngi leen di waa misira waa Pout waa fépp fépp fépp rek kuy dégg voix bi rek ngeen xam ne woote baa ngi noonu ngeen ñëw ginnaaw daaw bu ñu defee pause première jumaa bi ah ba tey nag ñu ngi wax képp rek ku ci mën a nga ñëw jàpp ci liggéeyal yàlla ndax liggéeyal juma mooy liggéeyal yàlla kon nag ñëpp ñu ngi leen di woo ci le 9 incha allahu rabbi à partir de 8 heures Thiès fële ca quartier Malamine Senghor incha allah ñu ngi mooy ñëpp jërë alhamdulillah la ilaha